dafa am ci alima loolu jarul waaj léegi nag teggin ci boppam moom réseaux yi da ngay am impression que dafa nekk drogue pour ñenn ñi maanaam lépp lu ñemewut a wax ak nit bu nekkee ci réseaux sociaux yi ci la ñu nekk di ko wax beneen bi ci topp ngor nga xam ne looy def sa ngor a ko war a lal ngor nga xam ne moom moom moo lay wéttali maanaam sa ngor mooy def nga dem ba Chine dem ba Dubaï mm-hmm. wàcc di jigéen góor tëj la ci nekk. Mhm. jël milliard jox la. Mhm. nga fëgg sa loxo ne ko man doomi séeréer la. waaw waaw. Hmm. loolooy ngor. te kenn gisu la. non day def day def benn cir sa deret day def benn circulation. ci sa biir yaram sa maam défilé sa kanam sa yaay défilé sa kanam. sa raar. nga ne ko lii lan la. Hmm? amatul léegi yàlla ba yàlla baal. ngor. ngor ngor dañ ko ngor dafa góor. ngor dafa. ngor dafa taxawoon di jaabante ñu loo ko. góor comme gileem ni muy def. waaw ngor dafa góor. dafa góor. waaw te ngor bu góoree rek ñàkk jom taxaw. wallaay wax nga dëgg. ñàkk jom ñëw ñàkk jom nag moo fees ci dëkk bi di fi lëmbe. ñàkk jom. waaw ñàkk jom. internet bi dogguma la professeur nee na ma professeur Massamba Gueye euh, professeur Iba Der Thiam ak Amadou Hampâté ba ay nit la ñu yoo xam ne dañuy utile et indispensable ci société dañu war di leen jox ay temps d'antenne ñuy wax na donte ay Amadou Hampâté Bâ ak ñooñu nekkatuñu fii mm-hmm. mais moom ñooñu la ko méngaleel wax ni télé yi dañu war di jox ñii temps d'antenne ñuy wax yàlla ma yàlla um, taas ci barkeb ñaari kilifa yu mag yooyu mu tudd wallaahi mi Amadou Hampâté Bâ ak sama référence di Iba xam ne yar. Mhm. ba bi muy génn àdduna. waaw yàlla moom maa ngi koy nuyu di ko sant moom mi wax loolu. mais li nga wax ne réseau social. bala ngay dem da ngay waajal sa bopp gis nga nit ki ni mel li yóbbaale ci réseaux sociaux yi. Mm. koo gis muy saaga ci réseaux sociaux yi day saaga seen kër. day saaga seen kër. koo gis muy jëw di wuññi sutura nit. di amul woon Facebook yi de ma nga ca koñ ba di wuññi sutura nit. dëgg la de waaye ki nu yar ci teggin yar ko ci muñ yar ko ci ngor gis nga ki am ki ki ki goree. Mhm. bu ko nit rombee ci buntu kër gi nuyu ko ba pare. Mhm. boo boo ñëwee ne ko alime jaar na fi mu ne waa alima jaar na fi léegi de. Mhm. lu mu sol mu ne la seetlu ma ko. Hmm? Ah. ko xoolu ko sax. ki am ngor ki. waaw ndax bët yi dañuy maandu. ñun léegi dañ lay xool sa catu tànk ba sa digg ba sa digg bopp. xam nga lu tax. xool bu ne jëw la. naan la kii ni ma ko jéppee kii. fu mu jëlee mbub mi fu mu jëlee <laughs> dàll. leer na ko muy tiitaru. ki am mhm. ki nga xam ne nag dafa lal ngoram moo tax wala def ne lal sa ngor. lalal sa ngor soog a wuti dërëm bu dërëm jeexee sa ngor des. lalal sa ngor ba lalal sa ngor soog wuti dërëm. Thione Seck ne woon na fi jamono toll boo amul ngor di nga yooru ci lëndëm. waxoon na ko te tegoon na ci ne la ne. ne jën yu mag yi jeex nañ. yaa mooy bee fi des te ku jiiroo da nga ñëpp a ngi sëqat dëkk bi dafa fot. <laughs> dëgg la ku jiiroo di nga Sénégal dafa fot ndax ñëpp a ngi jiiroo. wallaay dëgg la. wallaay 300 candidats ñëpp bëgg nekk président. wallaay dëgg la. loolu fot la dañuy fot léegi nag ngor googu mhm. teggin boobu teggin moo daan tax nga mën a wax ak ku ne maanaam nga mën a tiim ku la jur mhm. di wax ak moom di ko wax dëgg te du mer te du mer ndax waxin wa doo ko vexé teggin moom mooy indi mhm. ñu tooñ la nga wax ba pare am dëgg ba ki dem ba may seetaan benn président tribunal ci benn dëkk Eh, professeur dogu ma la yaa ngi fu am solo mhm. Fatou Lawbe moo ne mënatul téye boppam mu ngi ci oto mais mënatul téye boppam nee na moom yow rek lay topp Fatou Lawbe Fatou Fatou yaa ngi yaa ngi en direct yaa ngi en direct Alima Ndior moom nga invité topp dëgg boo ko gis danga koy seetaan même bu ma télé bi intéressé wul parce que li may gis yéen dafa am ay télé yu may intéressé ak li may seetaan ak li muy seet. <laughs> dëgg la dëgg la mais moom moom. Mhm. te mu ràngee waxtaan dama koy seetaan. dëgg la dama koy jóg xam nga la. dafa nit ku dëkk ku am ay valeur xaw ma ko bu baax nii. dëgg la dama koy topp. dëgg la. li nga yow ni ma lay toppee. dëgg la. laa koy toppee. dëgg la. nit ku baax la. kontaan nañu. nit am classe. ku am valeur walaay ku am personnalité. Mhm. la. dëgg la. saa yu mhm. mhm. dinaa dinaa fexe léegi incha allah dinaa ko jox sa numéro. te dinaa la yónnee numéro am dinaa fexe ngeen déggante incha allah. incha allah jërëjëf Lawbe nañu. maa ngi jërëjëf jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup euh, Fataloo ba te bari na ci ay moroma ah. ñu ngi ñu jot ay message yu mm-hmm. euh, euh, bari bari macha allah yaa ngi woon fa am solo professeur moom maa ngi koy gërëm Adja mm-hmm. maa ngi koy gërëm mm-hmm. moom xaw ma waaye sama sama rakk la xam Fataloo sama ñaareelu tofo dëgg la ndax loolu du waxu télé may maa ngi koy gërëm bu baax a baax te lii dafay dafay tax may tiit may tiit ndax nga xam ne nit ki fu mu toll ci àdduna su dellu see seedee nii da ngay da ngay gën a tiit ci xam ne yoon wi mu ngi soog a tàmbali. Euh, te yoon wi nag ñett ko lal. muy. bu euh, wax ba pare te doo jéppi sa bopp. waaw. wax ba pare boo demee sa kër doo jéppi sa bopp. Mhm. ndax xam nga ne ña nga dëkkal ca kër gi mhm. li ngay wax moom ngay dund ak ñoom. dëgg la. Mhm. wax ba pare doo xeeb sa bopp. dëgg ndax xam nga ne waxu di xool poosu kenn. wax ba pare du tiit sa bàmmeel. ndax xam ne loo wax ëllëg dinañ la ko àtte. yooyu bareetul de pour yi ngay wax. dénk naa leen ko. loola nag mooy jiite lal sa ngor ci lu mu mënti doon. Mhm. booy wut nguur lalal sa ngor. Mhm. booy wut alal lalal sa ngor. Mhm. booy wut liggéey lalal sa ngor. tey boo jaayee sa ngor ngir wut al ngir wut liggéey. ba pare amoo liggéey ba léegi nooy def. moo ma jaaxal. perte nga ñaari yoon. ñaari yoon léegi imaginel ki jaay ngorom sol mbubbum jigéen. te di góor dem di defi examen ñu jàpp ko dëgg la de. lum ñàkk amut bac te amatul respect. dëgg la de. na ñaari yoon. léegi nag réseaux sociaux yi. Mhm. boo koy seet ba seet ko. Mhm. dafa mel ne Sénégal dañoo nekk ci compétition wu ñàkk jom waaye dañ ne ku gën a ñàkk jom yaa jël pay <laughs> ndax kooku la kilifa yi gën a soxla. dëgg la. bu may xuloo ak meloo. Mhm. damay seet Cheikh Anta mi saaga ci internet bi. moom laay yónni ci melo. Hmm. mu saagaal ma ko waxal ma ko lu ñaaw yi ma ko xamal ma wax ko yi ma ko xamalul ma sosol ko. waaye wolof nee ne ku fen ba am jabar da nga ba mu fay. est que. ku fen ba am jabar. da nga fen ba mu fay. dëgg la te fen du bee jaaw sax. sëñ Abdoulaye waxoon na ko nee na ku say war waroo nga weeru. ku say war. waroo ngay war rek di war di war di war ñëpp ba mujj war yi ñoom seen bopp ñu waroo ci seen biir nga weeru. lay <laughs> makke baal la wax na dëgg. léegi nag loolu mooy jafe-jafe bi maanaam bu fekkente ne ñi bon. Mm-hmm. mbon googu dañ ciy am cër di ci falu di ci nekk maire di ci nekk député di kilifa yi di leen recevoir mais mbon day nekk métier. dëgg la ñëpp bëgg a bon ñaaw laa dafa nekk métier Sénégal. dëgg la ñaaw laa miin dafay maye kër ñaaw laa miin dafay maye oto ñaaw laa miin dafay maye pal. dafay maye respect. loolu mooy suñu problème respecté nañ leen ndax seen ñaaw laa miin la. xam nga léegi bu fekkente ne da ko def ngànnaay. Mm-hmm. def ko arme def ko lobby da ngay am problème. Mhm. waaye su fekkente ne yow da ngaa am gor. li ma ko Cheikh Omar Fall doon waxee yàlla ko yàlla xaare àjjana. xalem doomam mi koy waaji ñaanal le 2 mars à Kokki. ñoom ñëpp yàlla na yàlla. yàlla na yàlla xaare may leen gudd fan daf maa waxoon ne ma. Mhm. Dakar ku am xel man nga faa dëkk. ku am xel. mën ngaa dëkk dakaar ndax lan. boobu maa ngi soo ko commencé télé. Mhm. mu woo ma. maa ngi def la télé état nu ak Mariam Samba mii. Mariam Samba ñu koy nuyu waaw boobu Ablaye Wade falagut. waaw. ñu ngi fi bëgg a yàgg nag. wallaay dëgg la wolof nee na ñi fekkee mbojj mi ñoo xam ne dugub ji tool dëgg la dëgg la. mu ne Dakar ku am xel man nga faa dëkk te doo am problème. ndax la ma ne ko sëñ bi lu tax mu ne ma xoolal turu koñ yi rek nga jël seen jikko. koñ yi koñ yi ne ko lu tax mu ne ma boo meree rek muusal dama dëkk mer muus. mer muus. Hmm? <laughs> boo meree rek. boo meree rek muusal dëkkal mer muus. <laughs> dëkkal mer muus d'accord. mun a ma ku la tooñ. ku la tooñ bëgg a xëccoog yow bëgg a xuloog yow. Mm-hmm. demal dëkk jàmm gën. jàmm gën ay. waaw. jàmm jàmm gën. mun a ma loo ñàkk demal dëkk xaar yàlla. dëgg mm-hmm. <laughs> dëgg la. <laughs> ma looy dugg nag te xamoon noo cee duggee. Uh-huh. demal luy ji gore. oh. wax nga dëgg gore mun a ma boo ko amee nag di jëflanteeg nit ñi Dakar. mu ne ma mu ma demal nga wuti titre foncier Ngor. Ngor. est-ce que. addunaa ngi noonu. Mermoz gën gore ak Ngor. waaw solo bi noonu. kon nit ki. Mhm. su fekkente ne dafay dugg ci réseaux sociaux yi. Mhm. te moom leen rek ko ñëw maanaam mbooloo mi mu àndal. Mhm. mbooloo mi mu àndal. di ko jay ak di ko tàccu te ñi lay tàccu ñëpp bëgguñu la de. naan la yow rek la ñuy topp. laajal yow yaa fi ne laajal. ñu lay tàcc ñëpp bëgg ñu la. laajal kan yoo. dëgg de yoo dañ koy tàccu rek yoo dañ koo bëgg a rey. bi mu demee nan ne maam ji maam man de nit ñi dañ may tàccu rek mën a ko jàngal mbas. ndax moo tax ma doon maam. Black Jadri mi ngi lay nuyu bu baax ah, mi ngi lay mi ngi lay nuyu nee na nee professeur est un digne fils du Sénégal ah, mi ngi lay nuyu bu baax a baax Adja Ngoy borom histoire de plaire suñu yaay la mi ngi lay nuyu moom itam bu baax ah eh, am na ku ne ma léegi eh, ku tudd Amadou Dia ci eh, live bi nee na ma professeur mi ngi nii nee na Sen TV merci d'avoir invité notre père notre professeur notre guide social professeur vous incarnez le respect de tous les Sénégalais ainsi que le monde entier on vous adore. alhamdulilah yal na yàlla delloo ko yiw. alhamdulilah Nabou Diagne moom nee na il doit passer chaque semaine. chaque semaine <laughs> c'est vrai. bu leen ko wax bugaan di ko bu leen ko wax bugaan <laughs> ah, la wax. déedéet loolu <laughs> di ko allah. c'est important fi nga ne. Mm-hmm. mais li nga wax noonu. Mm-hmm. maanaam réseaux sociaux yi man buntu la. Mm-hmm. mais buntu suñu jikko. xam nga tey. Sénégal dafa xaw a doy waar. Mhm. dëgg la. dëgg la de del jëkkee kër gi del jëkk ci kër gi. jigéen nag moom moom moo am rôle surveillance sociale boobu moo tax boo nekkee xale bu jigéen diggante bi ngay am quatorze quinze ba seize ba dix sept an mhm. foofu ngay marqué sa personnalité. waaw am fulla am fayda fas sa sër nag. Mhm. surtout. fas sa sër. léegi xale yi li ñu xewal dañuy am jëkkër sax yi ànd ak ñoom meloo. léegi yooyu xew ci réew mi. yow boo demoon tey di jënd di jënd ay portable nga fekk portable yi nekk ci naaj bi ak portable bi nga xam ne dañ koo def ci embalage ban ngay jënd. bi ci embalage bi. jigéen ji jël jikko ju rafet nag muy embalage yu yaramam. waaw ñëpp a koy bëgg. góor ñi bu ñuy fo jigéen ju bon la ñuy wut waaye bu ñuy takk ku baax la ñuy wut. li li waa ne woon góor ñi bu ñuy fo xam nañ fu ñuy fowee. Hmm. waaye bu ñuy takk yi xam nañ fu ñuy takk. léegi nag jigéen ji nekk sœur nag nekk sœuru xale bu góor bu am jabar. Hmm. dafa war a doon ndeyu xale bu jigéen bi dafa war a bàyyi li mbokk xale bu góor bi jël xale bu jigéen bi def ko ndey kooku mooy jigéen ju baax. mooy njëkk bi nga doon wax sànq. jigéen ji doomu doomam takk indi ko ci biir kër gi moom dafa war a doon maamu ki sëy si ndax maam ak sët kal lañ moo tax ñu ne sa jëkkër dee ko wax nijaay. boo ko waxee nijaay ndeyam doon sa maam ngeen nekk kal xale bi nekk ci kër gi di sëy si ñu ko stressé. dëgg la de. Mhm. dañu war a dafa nekk dafa war a nekk sët bu ne ci biir kër gi moo tax buy ñëw ñu koy boot ba pare raame ko. ne leen kii day raam mënagul a sax dox. <laughs> ci sëy si bi bi dugg ci kër gi dañ koo boot gone la bi muy bi muy ñëw dafa raam ba agsi ci yéen waaye dimbali ko mu amee tànk waaye ba mën a taxaw waaye nañuy décoder code yooyu waaye ñun code yooyu duñ koy décoder dañuy yàq jàpp dañ koy def nii rek. en temps leen rey. anytime tamit toj na réew mi. pourtant professeur maa ngi bëggoon anytime. <laughs> remplacer ko par waral def ko waral time. <laughs> waral time waral time ngeen ñëw waxtaan xale yu jigéen yi sa xarit yi kenn ku ci ñëw nga ne ko jox ma benn valeur bu may yóbbaale bu may sëy. wax nga dëgg fàttali mu ne ma lay fàttali ko mu ne la phrase bii lundi yow nga ne ko mar di jox ma phrase mercredi jox ma jikko jeudi jox ma jikko kenn ku nekk ne la jeudi boo xëyee xëyee lii na nga xëyee yaatu jigéen day yaatu. dëgg la. jigéen jigéen day yaatu waaye jigéen dafa war a xam benn benn benn affaire. mooy benn affaire la war a xam bu àdduna bépp tukki woon tukki woon. Mhm. bu yàlla bëggee ruu ñëwaat mën naa am ci moom la koy jaarale. wallaahi wax nga dëgg. kon nag li ëpp importance ci àdduna bi mooy nit mais nit kooku kan la gën a kan la gën a fonk kan la gën a fonk. Mhm. ndeyam. dëgg la ndeyam lan la. jigéen. waaw jërëjëf professeur. oh c'est c'est dommage que temps bi jeex na li ñu bëggoon waxtaanee yëpp. Euh, journée doo doyal journée. <laughs> li ñu bëggoon waxtaanee yëpp xajul ci heure bi. ñu ngi eh, ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ndax eh, donte xat na bi muy ñëw léegi ministère la jógee mm-hmm. eh, waaye dafa dagg ay yitteem yu bëree bëri ñëw wuy suñu loolu ñu ngi ñu ngi ñu ngi la ci gërëm bu baax a baax a baax macha allah ci cër bi ñun li ñuy wax rek xale yëpp tubarkalla xale bu ci bëgg lu baax daf lay seetaan xale bu ci bëgg lu baax daf lay topp ci moo xam ci sa ay plateforme digitale ak yëpp dañu lay topp macha allah